juum nga yàlla ni ko juum nga juum bu jëkk bi moo di am am nekkul ci wërsëg wu teew waaw ni ko ñàkkit nekkul ci alal ju fàddu mu ni ko teraanga yàlla mu ngi ci fu mu la xool gëm ni jaamam nga même boo amul dara teral na la nee na sànju yàlla mu ngi ci mu jox la lu ne te du la xool ba boole la ci jaamam la tax yàlla ni ko kallaa juum nga du ben teranga ci dignité lay delu ah teranga ci dignité lay delu te moko yalla defal sutura gu day ni boo amul dara it ken yabula ah ku nangul la nga wara nangou nangu sa digganteeg sa borom rek mu yegg ak yow ci teral la ak sutural la bo fofu yàlla mu ni nag ñàkkit nekkul ci alal bu fàddu nee na ñàkk ngi ci nga dajale lépp te dootoo nelaw ndax lu yëngu nga defal ni tey àdduna tukki yàlla ni maa doon seetlu rekk ndax dafa am lu ma yëg ba ma leen joxe ndax ba ma leen joxee yëg naa ni laa tukrimuuna al yatim am na ku fi ndeyam nekkul baayam ñëw fi taamul kenn te bis bu ne ngeen romb ko fi mënu nekk ndeyam mënu leen nekk baayam te bu ma sañoon ni ma leen mëne ngeen mëne ko ñi ngeen tane ولا تحاضون على طعام المسكين يسن لخو جوتول سن غناو موي المساكين وحنا لين كو ديم كو لخوم جوتول غناو موي غور غو باغ كو كو ياب تا لامو سوني فاجول سوخلام تا واخ كين نيكو مايماكو yàlla nee na ku mel noona nag di ko bettee xéewal te du yëg comme ba lay bettee xéewal waxuma ko kenn nee na boobu mu ko yëg ci yéen wa taakuluuna turaatha aklan lamma ngeen di séddoog seeni naw lay deret te lañu leen bàyyil te du ngeen ca am mandute bu ngeen jëlee seen wàll ba noppi jël seen wàllu moroom ak lan lamman ak lan lekk nga sa bopp lamman boole nga ci yëfi keneen wa tuhibbuna almaala xubban jamma yàlla nee na leeg mu rus ndax seen wuti ni alal da ngeen di dem ba mu melni ni alal la leen moom aradtuka malikan aradtuka malikan wa aradta an takuna li nafsika mamlukan yàlla nee mu bëggoon yep yamb ci sa loxo yëg ni yëg ni yaa leen moom waaye dem naa ba yëg ni yaa yemb ci seen loxo ñu yëg ni ñoo la moom kalla ndànk waay waaye ndànk waay ida bisa nga ca ëllëg ida dukkatil ardu dëkkan bés bu ma gësemee suuf wa jaa rabbuka suuf gësamu ngeen jaxasoo yéen ñëpp ni lay ni képp rekk yëg ni yowmal qiyaam taxaw na iqtarabati saa ñu ngi ko wax ci suba iqtarabati saa bi ngeen miin mooy wan shaqal qamar waaye comme xoddi ko ca ba nga lakk leegul te dawit te ba ngay ami tànk iqtarabati saa wala yazdaadu annaasu ala dunya illa xirsan wala yazdaaduna min allahi illa bu'dan nee na jamono bu ngeen demee ba yit nit ñi di ngëw ngëwee àdduna comme xaj xaj bu gis yàpp ne ñuy ëw ëwee ku ne di puus sa morom pour jël ko nee na dingeen ngeen dem ci jamono ba gis nit ñi di ëw ëwee àdduna noonu kenn ku ne di buux sa morom nee na jamono boo xam ni koo ni yàlla mu dellu gannaaw nee na bu keroogee soreetul li ngeen di xaar soreetul kon nag daw ca ba ngay am i tànk xottiku ca ba nga lakk lekku waaw nee na keroog ngeen jàkkarloog yépp wa jaa rabbuka seen borom di temp wal malaku saffan saffa ngeen xol malaayika yi bataillon par bataillon ku ne fa wara taxaw mu taxaw fa